اهد جميعنا الصراط المستقيم وبالسيف كلنا بلا سقيم اهد جميعنا الصراط المستقيم وبالسيف كلنا بلا سقيم لك خجاب يا غريب يا مجيب يا من بلا زمن غير عجيب هبي وللذين تخلفوا ku ne xam na ne mbooloo bu bari lañ ci xaar place bi muy amee tamit place bu ubbeeku la mu nekk place Carrefour site d'hébergement yi tamit euh, ay sit yu am solo la yu mag loolu yëpp noté nañ ko waxtaan nañu tamit ak yéen ak suñuy service euh, li ñu mën a tënk ci waxtaan wi daal mooy na insister rek mooy d'abord ci wàllu sécurité mbooloo mu bari fu mu daje surtout place bu mel noonu service de sécurité yi xam nañ li may wax dafa laaj dispositif particulier euh, engagement yi jël nañ ko leer na nañ bu soobee yàlla ni mu war a doxe danañ ko doxale noonu waaye événement bi ak ni mu toll ak position bi ñu koy defee faw mu am incidence ci sécurité si wàllu circulation euh, loolu moo tax ma digal préfet ak service yi ñu ànd ak yéen sur le terrain bu soobee yàlla le 16 pour xool li nga xam ne moom lañ fa war a concevoir comme plan de circulation ko defee buñ ko doxalee non seulement ñiy ñëw ci événement bi danañ nekk en sécurité mën a circuler sans problème waaye tamit circulation Dakar ci zone boobu du perturbé wu loolu mooy solo plan de circulation bi beneen bi mooy ci wàllu santé ku ne xam na ne mbooloo fu mu daje euh, danay bëri ay bëgg-bëgg ci wàllu sante moo tax danañ fa def post médical avancé sapeur pompier ak région médicale euh, ci wàllu boobu service yi nga xam ne ñoo koy toppatoo yi fi nekk jël nañu engagement yi fi nekkul danañ leen bind lettre su ko defee ñu doxal ko ba mu mat sëkk yeneen yi c'est les aspects matériels euh, yooyu en général du poser problème mel ni DMTA wala ministère de l'intérieur bu ñu leen ko jottalee rek di ci gën a bëri en fonction de des moyens disponibles bien sur li ci gën a bëri dañ koy doxal ni mu ni mu waree. loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne ci ndaje bi jàpp naa ne laajoon nañu fàttaliku di ñaaxaat bu baax na chef de service yi te di ci profité tamit di leen féliciter euh, pour góorgóorlu bi ñuy góor góorlu ci événement yi fiy am ba dara bañ a manqué wàllu ndox mi nag yenn saa yi ñu am ci ay jafe-jafe waaye bi yoon euh, sant naa leen pour ñu teel ci jóg ko defee Euh, ñu mën ko mettre en place ci heure bi mu war ndax événement bu mel nii bu ndox mi manqué rek mën na yàq événement bi kon foofu euh, point la boo xam ne tamit laaj na ñu taxaw ci tuuti gën ci góor góorlu yeneen service yëpp nag mënuma cité waat li ñu waxoon yëpp mais yëpp engagé naa leen pour li ñu fi wax ñu jëfe ko à partir d'aujourd'hui parce que soreetul jot na ba pare euh, kon bu ñu génnee rek ku ci nekk li la war commencé koo def ko defee bu ñu demee ba événement bi jege si du ñu am benn pression daal laa bëggoon a wax en résumé encore une fois di sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci turu Serigne Omar euh, gouverneur ñu ngi lay nuyu yow ak préfet ak mboolem chef de service yi nga fi toogal wala seen représentant. Euh, di la yëgal rek mbégte bi nga xam ne am nañ ko ak cant gi ñu lay jotal ci dalal gi nga xamante ne bii dalal ngañ ko ngir ñu man fee toog waxtaane bis bi nga xam ne dafay bis bu rëy euh, li ma ci wax rek ngir ngeen xam day bi moo di foog naa ne Serigne Cheikh kenn ku ne xam na ko euh, sëriñ mbakki Soxna Lo kenn ku ne xam na ko te ñoom ñaar ñoo ñii defal bis ngir wane gis gis bi nga xam ne amoon nañu ko muy vision bi nga xamante ne bii moom la ñu amoon na ko sëriñ Cheikh tamle woon ak ni ko sëriñ Mouhamed àggale ak jéego yu rëy yi nga xam ne seq woon na ko ci euh, ñu cay waxtaane li nga xam ne jëm na ci wàllu tasaare xam di ca waxtaane li nga xam ne jëm na ci benn jullit yi kon loolu aussi joxaat ko yeneen ñaari dimension yoo xamante ne bii euh, foog naa ne kuñ ne bis bis bu rëy la doo ci am mbett te buñ càgg yéen ñëpp di ngeen teg seen bët moo tax euh, ñuy am ñu rafetlu jataay wàccaay wi di wane aussi seen engagement ak engagement état bi ngir accompagner la famille pour que manifestation bi am réussite bi nga xamante ne bii war na ko am kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu euh, bi ñu waxtaanee ba ba pare itam ñu waxtaanee fi li nga xam ne mooy mbooleem mm, point yi nga xam ne moo concerné wàllu organisation bi lu mel ni wàllu sécurité bi nga xam ne dañ ko soxla mu jiitu buñ ci àggi ak bu jeexee wàllu Senelec wàllu ndox mi ak fànn yëpp bàyyiwu bàyyiwuñu dara euh, loolu aussi xel mu dal lañ ci am ak ak kóolute euh, xañ na di leen gën a dénk rek suivi bi nga xamante ne bii moo ci war ba buñ ci àggee li nga xam ne bëgg nañ ko suñu borom defal ñu ko ca ndax kenn ku ne ci yéen wane na yéeneem kenn ku ne ci yéen itam jël na ay engagement xam nañ ne ay kilifa ñoo fi toog wala ay ay kilifa yabal leen kon engagement yu ñu jël amuñu lu ñuy nattable ci ne di ngeen ko doxal na mu waree suñu borom nag mooy mottali wante en tout cas di leen daal wan suñu kóolute ak suñu rafet njort ci ne buñ ci àggee ba mu jàll danañ toogaat fii santante lépp demee ni nga xamante ne bii noonu lañ ko noonu lañ ko bëggee woon. kon xañ na duñu duñu guddal jataay bi eh, kàddu cant la. ak kàddu rek feddali euh, kóolute gi ak confiance bi nga xamante ne bi aussi ñu ngi koy ñu ngi koy amaat ci yéen di ñaan yàlla àgg ci ak ak jàmm génn ci ak jàmm te lépp jàll ci jàmm nekk jàmm réew mi wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuhu